téléspectateurs internet du syndicalisme TV ñoo ngi leen di nuyu rafetlu saa su ne seen ànd ak ñun nees ki ñu dikk ak yéen ci xibaar yi tàmbaleekook nag ak manifestation bi amoon foofee ca Mbàkke jàpp leen lu bees daal dina ci am ndax lu tollook 65 personnes yoo xamante ni si ñeenti ñi ay élèves lañu defeere nañ leen ni ki démb en retour de parquet moom Serigne Assane Mbàkke ak ñeneen ñoo xamante ni si dañ leen a interpellé woon nag dinañu delluwaat ci kanamu procureur ni ki talaata ak tey jilee ñu gën koo xam ci Azoura Fall ak Khadim Ndiaye ñoom nag ñu arrêté leen dik moo def ñu mel ak gendarmerie gannaaw nag bi ñu exploité ay vidéo yooyu ñu doon waxee naka di tuumal gendarmerie ne dañoo bëggoon a faat ki nga xamante ni moo di rek Ousmane Sonko parquet ba nag moo ngay sàkku nag ouverture ñaam ci information judiciaire contre Daouda Kologa ak Amini Bal Jim juge bi nag bu deuxième cabinet saisir na li nga xamante mooy pour le premier face aux arrestations jëm ci li nga xamante ni si moo di toutsagimis Guy Marius Sagna et compagnie ñoom ñu ngay annoncé ab plan d'action Macky Sall nag bu yeboo mu xam ne ab résistance farouche nag bu raw lu amoon mars 2021 dinañ ko am loolu nag ñu ngi koy dankaafu Cheikhou Oumar Diagne nee na le procès en Guinée doit être un signal fort pour tous les dirigeants africains Abass Fall nee régime bi dafay niru rek loo xamante ni si dañ ko war retenir du passé ndax lañu gis nag jàpp nañ ne fi ñu toon yi daanaka jafe-jafe noonu la lalu ci biir réewum Sénégal gannaaw bi nga xamante ni si Babacar Diagne di njiital général jëloon na ab dogal daal di coupé signalu Walfadjri ci diirub juróom-ñaari fan jàppale nag ñoom waa groupe Walfadjri ci seenu ko njiital PDG di Cheikh Niass bàyyeeguñu xeex ba ba saa si nag fas yéene jàkkaarloo ak moom la ñu def rek moo di xaatim ab plainte ko jébal yoon jëmale ko rek ci Babacar Diagne ndax jàpp na ni nag la ñu def amut lenn loo xamante ni si jekk na jaadu na lu nu mel nag moo tax fi mu ne nii daal ñu bugg ko defante ak ñoom ba mu saf sàpp loolee tax nag ñu daal di xaatim nag li nga xamante ni moo di ab plainte jëmale ko nag ci euh, boobule kër di Babacar jaañ loolee nag am gannaaw bi nga xamante ni ñu ngi doon amal ay manifestation en direct ci télévision bi ci la ñu dogal boobe dal di li nga xamante ni moo ñeel nag xeex jëm ci accident de la circulation le coup de frein mortel du gouvernement 23 mesures yi nga xamante ni annoncé wu nañ ko ñenn rek lañ ci daal di appliqué état bu Sénégal si jamono ji nag tâtonnement ak kafuwaat la nekk ndax booy xool nag daanaka boobu ak léegi amakut leen loo xamante ni si jëm na ci saafara boo xamante ni effective na di mesures yooyu nga xamante ni jëloon nañ ko ngir rek jëlee fi accident yu bëri yi nga xamante ni si moom lañ nemmeeku woon ci yoon bi suspension maître El Hadj Diouf nag affaire Sweet Sans Beauté parmi ces juges nag am si adversaire jëm ci Sweet Beauté Adji Sarr principal ndax moom El Hadj nag kuréel gi nga xamante ni ñoom boot avocat yi dañ ko génnee ci seen biir sumil ko robam lu ñu mel nag moo tax moom nag ni ci vingt huit février bi nga xamante ni si ca la ñu dëgmal dina jàkkaarloo ak bato ñee moom El Hadj gannaaw nag bi kuréel googee nag jëlee ko dogal ngir génne ko ci seenub kuréel googe ñeel naka kuréelu avocat yi wax ci bëccëgu tey jii di fukki fan ak ñeent ci weeru février bëccëg boobee nag ñu ne dañ koo jagleel ñi nga xamante ni moo di aji bëggante yi nekk nag bëccëg boo xamante ni ñi bëggante nag dañuy joxante kaddu di waxante lu neex waaye itam di dund loo xamante ni si dafay firndeel seenub mbëggeel loolee nag daanaka bëri na lool ci ay jafe-jafe ñoo xamante ni si daanaka nag ñu ngi ci réew mi di ay handicapé ñoom nag nee na la ñu dund maanaam bëri na lool am na si ñoo xamante ni nee nañ nag ñu bëri bëgg leen a takk ndax seen situation d' handicap bi nga xamante ni si noonu la ñuy dund waaye nag si ñoom biir ñu ngi xam ne nag am na si ñoo xamante ni sam ñoo ngi séyante seenu biir mu nekk nag loo xamante ni daanaka ñoom gis nañ ne dañ leen a métti lool ndax jàpp nañ ne mbirum mbëggeel dara waru cee lalu moo ci wàllum nekkin waaye itam wàllum situation ba ci sax wàllum nag Sénégal booy xool looloo fi gën bëri mu nekk nag ab njàmbatu boo xamante ni ñoom dal nañ koy fësal ci bëccëg bi nga xamante ni si moom dañuy jagleel mbëggeel nag nag ñu wax ci wàllum politique ak Idrissa Seck ak Macky Sall ndax loolee nag waaxul jëm ci jeex ndax Idrissa sekk mi nag nekkul nag ne xelam dafa dem ci présidentiel war a doon candidat ngir jiite réew mi loolee nag jàpp leen nag am na loo xamante ni mu ngi ciy xeeñ mu di wàllum trahison ci diggante Idi moome ak Macky Sall ndax jàpp nañ ne na Idi waxee keroog doon na ab signal fort boo xamante ni boo moytuwul dina bëri lool lum ci mun a jàngee Pastef moom wini pan na Macky Sall ci tribunal des droits de l'homme ñoom nag ab leetar bu yaatoo yaatu lañ daal di bind jagleel ko ñooñi lañ ca xaatim nag moo di jëf ju ñaaw ñi nga xamante ni Macky Sall noonu la yoree nguuram waaye itam la muy teg ku jégi booba ak léegi di salfaañi seen ak ak yelleef loole nag la ñu ne daal fi ñu toll nii war nañ cee taxaw tembe ndax lu ëpp tuuru te Macky Sall booba ak léegi kenn artoogul ko mu nekk nag loo xamante ni mun na indi ay jafe-jafe ci réew mi groupement national des sapeurs pompiers nag daal dina envoyé ab détachement foofe nag ci Turquie loolee nag mu ngi am gannaaw bi nga xamante ni ay jafe-jafe ay séisme mu ngi am ci dëkk boobee nag ngir ñu mun a indi seen jàppale ci la am